asalaamaaleykum waa Alphie Cuisine nuyu naa leen ziar naa leen sama gars yi ba lépp jàmm waa ay ca ñu dem ci recette jeudi yi xam ngeen ni jeudi ferme gànjool la spécial ferme gànjool lay doon sama gars yi de maa la ko wax site internet bi rek bu ngeen ci duggee www.fermegànjool.com ah wala ngeen am application bi si seen téléphone ah bu leen ko fàtte fa la bagage nekk de ay produit cent pour cent euh, made in Sénégal euh, qualité supérieure laa lay tegal nii. sama gars yi donc bi ngoog Alphie Cuisine ak Ferme Gandiol chaque jeudi lay doon euh, ak les recettes spéciale Ferme Gandiol ay ba ñu dem tey ci recette tey bi. asalaamaaleykum waa Alphie Cuisine nuyu naa leen ziyaar naa leen sama gars yi ba lépp jàmm waa dikkati naa de waaw kay comme niñ koy faral di defee rek euh, les jeux de cuisine ak Ferme Gandiol. waa tey ñu fas yéene defar nag ay crêpe pane waaw crêpe salé farci pané yu saf sàpp daal waaw comme tey ferme Gandiol ay blanc de poulet la ma àndil te xaw na bëri naa ci defar crêpe naa ci defar tam supp parce que dama fi am ay légumes yoo xamante ni bëgguma mu yàqu waa benn supp bu yolom rek mi ngoog léegi pâte à crêpe bi euh, comme crêpe salé la ñu njëkk a mesurer sunu ay farine donc bu leen fàtte ni mesure yëpp a ngi ci barre d'info bi farine xorom poobar herbe de province ak tuuti persil waaw kañ daal di personnaliser sunu pâte à noonu laataa yeneen bagages yi di ci ñëw dem waaw kañ mu nuyu leen nag ziyaar naa leen namm naa leen de sama gars yi waa ci lu ngeen ne nag ok nañ ci def euh, tuuti persil haché. waaw su ko defee ñu daal di toj ci benn nen ak euh, meew donc damay préférer def benn nen def meew dolli ci tuuti ndox mu xaw a léger waaw xaw bañu bañ a nduróog crêpe sucré daal mi ngoog léegi nag euh, délayel sa meew au fur mesure ngay def di yëngal ci digg bi waaw koy di yëngal di yëngal ba donj yëpp dem nga am sa texture texture crêpe ñu fas yéene ko bàyyi mu reposer beurre bi rek moo ci des dañuy ñëw seyal beurre def ko ci. ko comme ferme Gandiol nag euh, mi ngi préparé feetu fin d'année yi euh, tey blanc de poulet moo ñëw mais bu leen fàtte ni lépp luy volaille euh, qualité supérieure bi lépp lu ngeen soxlo ci wàllum volaille mi ngi ferme Gandiol dend entier xam nga dend moom feet yee ko tax a jóg waaw koy kanaar pintade poulet fermier poulet de chair kaay ak lan Euh, lu ma fàttewaat ci volaille yi lu ma fàtte rek ferme Gandiol da koy defar yow mi yor sa service traiteur wala ñi nga xamante ne dañuy xew mën ngeen passé seen commande di ko passé ferme Gandiol ñu leen di livré bu leen sonn di dem di ko jëli dañ leen koy andil fi ngeen nekk waaw pour feeti nag période feeti yéen ñi nekk Europe da ngeen di teel a woote def seen réservation pour seen famille yi nekk Sénégal waaw sinon nen yaa ngi ferme Gandiol comme ni ma utiliser meew comme lait entier bi ma utiliser ferme Gandiol daf koy daf koy defar daal di defar euh, beurre clarifié muy diw ñor yooyu yëpp dafa am ferme Gandiol yaawur nature bi nga xamante ni dafay ñëw dugg ci recette bi mu ngi ferme Gandiol ok léegi su ko defee nag nga daal di façonné sa ay crêpe waaw na xaw duuf tuuti waaw comme dañ koy farcir daal na bañ a na bañ a tàcc daal waaw léegi yow defaral say crêpe daal jël blanc de poulet yi nga xamante moom la fejat su fekkee lii ma def nii mënuloo ko maanaam daggat bi ferme Gandiol am na poulet à la ay blanc de poulet yoo xam ne dañ ko daggat ba pare yenn yi dañ ko mariner sax ba pare wala sax ay steak de poulet yoo xamante ni pour mën a defar seen ay burger surtout ñi nga xamante ni dañu bëgg a gagner du temps pour goûter xale yi waaw jege leen ferme Gandiol pour seen solution ci lépp lu ngeen soxla ci wàllu produit laitier ci wàllu volaille ci wàllu viande de veau hmm? lépp ngi ferme Gandiol moom daal am ferme gànjool ci sa téléphone maanaam application bi ci sa téléphone dafa noppale dafa mel ni nga am application wu transport wala application wu banque ci sa téléphone day noppale génération 2 point 0 lañ nekk da ngeen di télécharger application bi di dugg ci site internet bi waaw koy abi yóndee na ma épices yi mi ngook bu yondu poule bu de laa ciy def nii def naa curry euh, def gingembre def poobar euh, ak lan herbe de Provence sama waa moom duma ko fàtte moom waaw moment bi bu la neexee sax boo amee nokkos boo jaaree ci penda euh, mu jox la potu nokkos waaw tibb ci benn kudd dóor ko ci bu leen fàtte nokkosu penda yi penda ngay pare lu rëy ci décembre bi waaw kay nokkos chez penda les nokkos bien épicés chez penda maa la wax lii jëlal sa laaj râpé ko ci ñaar ba ñetti guus nga ko daal di bàyyi nag mu mu mu mu mu ñor bàyyil goût bi dégagé mënuma la wax nag moment bi euh, odeur bi muy dégagé waaw kañ épices jaxasoo na booleeg poulet bi mi hmm? ngook léegi yëngalal daal di préparer légumes yi nga xamante ni moom ngay gis noonu ci ci wet bi waaw kañ bi may def légumes yi nag Léa moo yoroon téléphone bi moo tax mu yëngatu nii waaye yàlla baax na moom mooy copine Rama Iyane Thiam sama sista boobu nekk Paris moom euh, Léa lay bëgge ok donc mi ñu mélangé def légume bi soxlawul nag ñuy bàyyi légume bi mu ñor ko bàyyi mu croquant waaw kay léegi nag euh, li may def moment bi mooy gis nga ni mélange bi am na tuuti ñeex waaw important jëlal sa euh, benn kuddu farine daal di ko ci nga xamante ne da ngay am texture sauce béchamel mi ngoog léegi fromage frais comme li ma wax léegi yaawur nature mën na ko bi nga xamante ni mi ngi ferme gànjol dipp ci ñaari kudd yu mag boo defee farine bi ba pare nga xamante ne dafay ñëw absorber liquide bi nga nekk ci ñeex bi nekk ci préparation bi yëpp nga daal di jël sa ñaari kuddu fromage dóor ko ci yii tey damaa yéegal niveau bi yooyu crêpe yu saf <laughs> laa bisul ma nañu boole confinement ba pare duñ lekk lu neex moom kañ dañuy mën a confiner moom waaye lekk beeg biir bi moom ay moom kañ ñi ciy dugg moom comme yéen yéen a ngi Sénégal di noos ñun ñi ngi Europe ñu confiner ñu. waa ñu duufal sunu bët rek du daal di duufal sunu biir togg yu neex di ci bég di ci bégalaate ok maa ngi nuyu waa Canada di nuyu waa États-Unis ñoom tamit maa ngi leen di suivre ñu ngi dugal ay yu neex waaw di dugal ay bagages yu baax mu ngoo ko ñoom seen ay seen ay bagages a baax <laughs> waa Canada rek ak waa waa États-Unis waaw ba tey bokkul fii produit sax xaw na cher tuuti fii côté Europe Sénégal tamit produit yi nga xamante ni dañ koy importer xaw na cher tuuti. mais États-Unis dama fay gis produit yu baax ak côté côté Canada mi ngoog sinon maa ngi xaar ñeneen ñi waa Allemagne ak waa Norvège dugal leen seen ay vidéo may xool muscade bi nag wis ci tuuti aw kay mu xaw la jox tuuti guubu sauce béchamel léegi nag mën nga fay gaz bi bàyyil sa sauce sedd waaw bàyyil sauce bi sedd ñu daal di récupérer crêpe yi farcir ko ana fromage bi waaw kay dangay jënd sa fromage nag bu la fekkee booru Suisse jëlal sa gruyère ok bu la fekkee booru Italie jëlal sa mozzarella ok euh, bu la fekkee booru Amsterdam jëlal sa gouda ok mi ngoog fromage ko ba mu neex états sax am dañu am dañuy defar seen seen seen seen seen xeetu fromage mi ngoog na ma ñenn ñi bind commentaire ku ci nekk sa dëkk sa fromage nu mu tudd waaw ma koy lim foog may ñëwaat ci dédicace nag xam nga fan yi layaa moo ma moo ma occupé parce que soo jëlee carnet bi di bind daf koy xëcc mais dinaa ñëw ci dédicace yi léegi nag farcir secret lem ko mel na kuy defar neem. ok rouler ko soo koy teg da ngay jël euh, côté bi pli bi nekk nga teg ko ci suuf comme ça mu collé et puis su ñu defaree crêpe bi da nga koy bàyyi mu sedd soo ko farciree ba pare denc ko ci frigo bi pendant 30 minutes ba mu collé ñu soog ko pané. ñu ngoog tey croustillant dafa ñëw di ana waa team croustillant Kardash waaw kay ma sista Kardash moom mooy euh, présidente fans club team croustillant waaw kay sinon fàttewu ma ñeneen ñi damay bañu jum rek xam nga boo limee da ngay jum. waaw koy may képp kuy bëggee Team Christian rek waaw koy jëlal xampal waaw xampal xàmpal ñu ko bu crêpe bu crêpe bi paree na waa Team Christian xamp yéen ngi fàtte bi ñu nekkee xale <laughs> bi ñu nekkee <laughs> la joxee goûter rek nga dem école nit ñi indi seen sandwich rek may la benn xàmp ok na ku ne xàmp sama gars yi dañ ko xampante noonu mi ngoog ça se mange avec la main supp baa ngi nii de. waaw jël naa carotte yeeg céleri beeg euh, di nga maam pooro bi euh, ak lan pomme de terre bi yëpp laa ci defandoo léegi poulet bi nag demagu ci poulet bi damay bàyyi ba muy waaj a ñor ma def ci poulet bi ak bled bi waaw kañ defal sa def sa laaj sàppale ba mu ba mu ba kay léegi comme façonné nañu crêpe yi ko au frais ba mu sedd nañ ko def panure à l'anglaise on salue les anglais dem ba Londres daal dafay nuyu sunu fans yi fa nekk dóor ko ci nen bi. mi ngoog farine nen chapelure soo ci deful farine nag da ngay gis ni sa panure dafay détaché wu soo ko saafee ba pare dafay mel ni luy décollé wu farine bi mooy naan ab euh, humidité bi nga xamante ni mooy nekk ci crêpe bi waaw kay ana ferme Gandiol sama gars yi kenn du yéen waaw kay ñu nuy personnel bi di liggéey ferme Gandiol yépp ndax dañuy bëggee Alphie Cuisine mi ngook téléchargé leen application bi dugg ci site internet bi def seen ay commandes chez Ferme Gandiol tout ki qui est produit euh, de fête mi ngi Ferme Gandiol waaw da ngeen ni teel a def seen ay emplettes teel def seen réservation su ko defee bu feeti jege see rek ñu livrer leen waaw kay numéro de téléphone yi changé wul mi ngi dugg di jàll euh, sinon am ngeen variété euh, volaille yépp Ferme Gandiol dinde pintade canard poulet de chair poulet fermier lépp a ngi ferme Gandiol pour euh, satisfaire leen waaw indi leen produit yi gën produit produit de qualité yi lépp luy nen lépp luy euh, produit laitier ferme Gandiol daf koy defar pour clientèle bi nga xamante ni euh, chaque jour dañuy soxla produit ferme Gandiol yi nga xamante ni mooy neexal sunu ay sunu ay togg daal ok léegi nañ ko saaf tegal sa diwlin daal di wàññi sa gaz saafal say neem ba mu doore déggal say crêpe ba mu doore waaw kañ su ko defee nag ñu jàll ci dégustation bi li ma waxoon léegi waa Tim Croustillant ah, ay wa ñu xàmp ku ci nekk boo xàmpee paasal sa morom ok yàkkal naa ko Tim Croustillant ah, yépp nii rek lay demee chaque jeudi euh, les recettes euh, chez Alphie Cuisine ak euh, ferme Gandiol tey ñu defar ay crêpes panées hyper croustillant maa ngi koy wax yàkkal naa ko sama fans club yépp Euh, Team Croustillant fépp fu waaye di suivre Alphie Cuisine rek yàqal naa la ko bu leen fàtte nag di abonné wu di partager vidéo yi et puis di liker pourquoi pas bàyyi seen commentaire euh, ñu joxante rendez-vous rek euh, semaine prochaine incha allah samedi am na surprise bu leen di xaar de bu leen fàtte recette samedi bi su ma dugg see samedi rek di ngeen xam ne surprise ñëw na waaw kay sama gars yi à très bientôt et une très bonne dégustation merci beaucoup.